mbokk yi teewlu seen chaîne préférée seen njëriñ TV di leen nuyu di leen jaajëfal amaat mbégte loolu del suwaat ci vidéo bu yees ngir dégtal leen kàddu yi Babacar Diop bokk ci parti bi ñuy wax Pastef nekk ca Italie ci diaspora bi di liggéey liggéey bu am solo indi ay leeral yu am solo mbokk yi ñu teewlu vidéo bu del suwaat commenté leen actualité bi. waaw salaamaaleykum gars yi euh, ñu ngi nuyu ngi jaar tey nag ma bëgg def benn vidéo euh, jëmale ko ci ñiy défendre. kilifa diine yi ñi ne ñoom dañuy défendre kilifa diine yi quoi ñi ne ñoom seen métier mooy défendre kilifa diine yi man du ma bëgg sori sax ci kilifa diine yi parce que euh, ñun ay taalibe lañ ay taalibe lañ euh, di revendiquer sunu murit mais nag tey dama bëgg wax en général nag quoi parce que euh, wax faaw muy am dégg-dégg quoi dama dama jàpp ni tey. ñi taxaw ne ñoom dañoo yor association pour défendre këru diine yi ak nit yi nga xamante ni ñoom nee nañ seen métier mooy défendre këru diine yi ak nit yi nga xam ne seen métier nee nañ mooy défendre ay sëriñ euh, ñooñu ñooy premier ennemi wu sëriñ si ñooy premier ennemi wu kilifa diine yi ñooy premier ennemi wu tamit këru diine yi je m'explique tax parce que man bu fekkente ni yow da nga jege sëriñ bi wala yow nga bokk ci sëriñ bi. yàkkamti nit wax ba ne sëriñ bi na wax wala sëriñ bi di xew wala mu ne sëriñ bi li xew ci dëkk bi ndaxam yëgu ko nga génn yor sa làmmiñ dal ci kaw kooku yow yaay premier ennemi wu sëriñ bi maanaam ñi jege sëriñ si ñooy premier ennemi wu sëriñ si ñi défendre sëriñ si ñooy premier ennemi wu sëriñ si parce que xamul daal parce que bu fekkente ni tey dañoo nekk ci réew moo xamante ni dañ ne état la état moo ne si kaw lépp kon état moo ne ci kaw ci kaw kilifa diine yi. waaye nag kilifa diine ñoo ne ci kaw président de la république loolu réew mi di Sénégal kenn mënu ko fi bañ parce que kilifa diine pouvoir bi am ak doole bi am ci dëkk bi état am euh, président de la république amu pas waaw xajjal leen nag état ak ak président de la république kon je répète madame, état moo ne ci kaw lépp état moo ne sax ci kaw kilifa diine yi waaye kilifa diine yi ñoo ci kaw président de la république parce que li ëpp ci population bi manam ci këru diine yi lañ jokku ci këru diine yi lañ yaakar këru diine yi lañuy deglu manam li ëpp ci population bi bok manam li li serigne bi am manam kilifa diine bi li kilifa serigne bi am ñu naan ko kilifa diine état amul loolu dañu wanti deug parce que tay Sénégal à l'unanimité dañu gëm diine ñi fa gëmul diine parce que soit da gëm diine musulman wala diine catholique léegi nag ci biir loolu am ñoo xam ne dañu gëm diine musulman ba pare wëlbatiku gëm ay tarixa parce que li tax ñu gëm tarixa yooyu mooy ñi fi nga xamante ni ñoo fi taxaloon xeexal l'islam waaye léegi bu dee yow da ne yow danga jege sëriñ bi wala nga jege kilifa diine bi réew mi nekk ci direction boo xamante ni ci tàq la jëm ay nit gën taxaw ne sëriñ bi war na wax parce que sëriñ bi dafa war a wax effectivement dafa wara wax parce que serigne bi dafa am ño xamanteni tay buñu jaxlé ci serigne bi lañ jëm yow nga taxaw dal ci kaw kok moy yow nonu serigne bi moy yow noonu kilifa diine gi bi parce que xangalu da tay tax réew mi bu takké yow ki nga xamanteni ya gëm kilifa diine bi gëm serigne bi di woote woo mourid wala tidiane wala laayeen wala ñaseen réew mi bu takké ba nga nek en danger ci kër kilifa diine yoy nga gëm fa nga daw jëm man mourid tey Sénégal bu tàkkee Macky Sall yóbbu ci Sénégal taal ko pétrole bii mu wis ci dëkk bi mu wër almet bi koy taal ba gis ko bis bu taalee dëkk bi ba nekkatuma en sécurité man sama kër Touba laa daw jëm Tidiane bi bu réew mi tàkkee ba nekkatul sécurité ci këram Tiwaawan la daw jëm Laayeen bi bu dëkk bi tàkkee ba nekkatul ci sécurité ci këram Yoof la daw jëm ca kaw sëriñam làqatu fa loolu mooy li am c'est la réalité kon tey yéen da ngeen war a dimbali sëriñ si balaa réew mi di tàkk nit ñi di daw di jëm ci si ñoom parce que bu réew mi tàkkee ba ñu daw di jëm ci ñoom beneen poids lay nekk si ñoom te lii lii olof yi naan maanaam eh, réew mi bu tàkkee kenn du ci mucc loolu mooy dëgg parce que tey réew bu tàkkee murit yi amul murit yi jaaxle amatuñ fuñ jëm réew mi nekk ci guute nit ñuy reyante fan fan lañ daw jëm ngeen yaakaar Touba lañ daw jëm Touba ci boppam lañ daw jëm loolu da ngeen ko war a xam. tijaan xam lolou lay bi xam lolou ñeseen xam lolou te rew mi bu takke talibé yi ci kaw seen dëkk yoy lañuy daw jëm pour nek à l'abri légui nak fop li ngeen ci wara a moy kon kay tey la wax rew mi ci nek ci jam mo gën yow nga taxaw yow ku wax ne sëriñ bi na wax nga taxaw dal ci ko parce que tay yaakaar naani défendre rew mi mo ëpp solo fuuf fuuf fuuf défendre sa tarixa bi nga bok wala défendre sa këru diina bi nga bok parce que rew mi bu nekkul ci

lacrymogène da leen fay fekk ñaseen buñ dawee dem Njaasaan ñaseen buñ dawee dem ñaseen lacrymogène yi da leen fay fekk laayeen bu ñu dawee dem Yoff lacrymogène da leen fay fekk kon réew mi défendre réew mi moo ëpp solo téeméeri junni yoon défendre yow sa këru diine bi nga xamante ne yow foofu nga bokk parce que réew mi bu nekkul ci jàmm sa këru diine boobu mënul nekk ci jàmm loolu c'est important ni ñu ci xel kon ñu jege sëriñ bi dañoo war a wax sëriñ bi Macky Sall direction bi mu jëm baaxul nañ leen ko wara wax mu leer ñu expliqué leen li xew ñu jël seen ay responsabilité taxaw wax bala réew mi di tàkk nit ñi di ñëw ci seen kaw waaye réew bu tàkkee tamit nit ñi kër diine ñu yaakaar rek lañ jëma ñaata murit lañ fi tëj la preuve ñaata murit lañ fi rey la preuve ñaata tiijaan lañ fi rey ñaata tiijaan lañ fi tëj ñaata ñaseen ñaata laayen ñaata cene ba cene ba ñaata xaal ma di ngoon dégg ñaata ibaadu lañ tëj ci kaso bi léegi ñu ne réew mi ñoo ñëpp ëmb réew mi dañu war a toog noppi te kenn waru leen wax pour ñu wax ku wax am ñu jug di dal seen kaw ñooñ ñooy ennemis sëriñ si ñiy défendre sëriñ si ñooy les premiers ennemis des marabouts parce que da ngeen leen war a wax li xew nag c'est ça la réalité neex dox mais mooy dëgg ku mu neex ngeen di ma doo murit mais garaawul rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak seen chaîne préférée seen njëriñ TV ginnaaw bi leen dégtalee kàddu yooyu nga xam ni moom baaba kër Babacar Diop Sadikh bokk ci partie bi ñu wax Pastef yëkkati na ko muy kàddu yu dëgg yu leer yoo xam ne kenn ku ci nekk ci ñun. teg nga ci sa gët wala duut nga ci sa baaraam noppi gi nga xam te ñu ci bari ci kilifa yi waroon ko wax ñu bari ne ñoom ñi ngi wax ci suuf te Sénégal ñu bokk kenn ku ci nekk di fëgg sa dënn saa su nekk ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar loolee nag dañu jàpp ne fii ñu toll la war a doon kàddu yi ñëpp mooy Sénégal gis nañu mag Sall yàq gi mu ko yàq jalgati bi mu jalgati constitution bu Sénégal te ñu ñëpp ñu bokk constitution boobu nga xam ne moo ko mag mag képp koo xam te ne yaa ngi ci réew Sénégal loolee nag waroon na tax waroon nañu boole ba tey ji ñu sàmm. lépp nga xamante dañ ko waxoon muy mënul def mandat Macky Sall ci ji mën wax à partir du 2 avril dana briguer troisième mandat dana fi toog waaye ci doole goo xamante ne tegu ko fenn te loolu lépp ñun ñëpp ñu teg suñuy gët kàddu yi nag dafay naqari ndax askan bi ñu ci bari xamuñu bu a baax a yi nga koy Sénégal na ñoo bu rek naan pour ñoom lépp baax ci li e Senegal.